mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi war a jël tey sun ñeen fukkeelu bunt ak ñaar muy baabun fi taami wa shara wa sharaab buntu ci wàllu lekk ak naan yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page cent dix-neuf bu dee ñu yor Samarudaani bi yaa ngi ci page six cent quatre-vingt-dix bi muy quarante-deuxième bunt bi rek ak téere boo mën a yor alhamdulillah ñu ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci daje ci ab néegam li ñu fi tax a toog mooy nafar la nga xam ne mooy suñu diine tey jii mooy ñaari fan ci li ñuy tuddee weeru rajab sunu maam yi dañu ko doon tuddee ndeyu koor loolu mi ngi noonu digganteem ak koor benn weer rekk fa dox muy Shaaban bi maam yi tuddee baraxlu di weer woo xam ne ni it suñu boroom complété na ko ñeenti weer yi mu warmaal islaam ñeenti weer la ci yàlla warmaal déggu tabaski tabaski tamxarit ba ka ñeenteel mooy bii orma ja nag la ca gën a am solo muy fexe ba moytu lépp lu xaraam nu raw nañ ko doon moytoo ca weer yëkk a jiitu boo delloo it ci yenn wax waxkat weer wi lu ne wax nañ ko ca ci ay ngëneel ak ay jaamu yàlla ak ay yooyu waaye mbokk loolee amul lenn loo xam ne wér na ca jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne ci weer yi ñu war mal yi la bokk na ci loo xam ne lu àndul ak benn tënk ñu rafet la ci koor ak lu bari ci yeneen i jaamu yàlla yoo xam ni kenn du ko tënk ci benn lim wala ci leneen mi ngi noonu su dee ni bokk nañu gis incha allah ñu jël suñu bind bu njëkk day wax ne wa iza akalta aw sharibta heure boo demee bay lekk wala ngay naan fa waajibun alayka an taqula bismillah wareef la ci yow nga wax bismillah wa tatanaawala bi yaminik ca it nga jëfandikoo ko ci sa ndeyjoor fa ida faraxta heure boo paree ca lekk ga ak naan ga faltaqul alhamdulillah na nga wax alhamdulillah wa xasanun an talaaqa yadaka qabla masxiha rafet na ci nga mar say baara say loxo avant nga koy fomp wala di ko raxas wa min aadaabil akli bokk na ca teggi ñi lekk ba tey an taj'ala batnaka sulusan littaam sa biir bi nga def ko ceer ci lekk wa sulusan li sharaab ak ceer ci naan wa sulusan li nafs ak ceer ci noyyi ga ngay noyyi wa ida akalta maa gayrik su dee da ngay lekk ànd ak keneen akalta mimma yaliik lekkal ci la sus ci yow wala taaxuz luqma bul jël la nga xam ne mooy ab tibb xatta tafruxal uxra mooy la nga xam ne da nga koo sex lañ ci ko ci tibb bul jël di beneen lu dul ni pare nga ca bëgg a jiitu woon ca mooy wan nga ko ba pare doog a jël beneen mbokk bunt bi daa bokk ci bunt yi jàngal jullit ni jullit ndekete dundam yépp jaamu yàlla la mu safaanoo ak ni jàpp ni diine daal mooy julli koor aj makka zakat la ci des nag ma mbiri àdduna la déedéen mbokk julit diine lislaam moo lay jàngal bi nga yeewoo sa kaw lal ba baa ngay tëri sa kaw lal foo fi toll mu ne la nii nga ko war a defee ngir lépp doon jaamug yàlla loolu mi ngi noonu su ko defee la nga xam ne mooy ak lekk ak naan soo demoon ca militaire yi wala nga dem ci politiciens yi wala nga dem ci feneen amu ci kenn ku am programme naan nii ngay lekk ak nii ngay naanee kaza wa kaza ama lislaam lam la jëkk a digal mooy tiim nga ak lekk lekk googu da ngay jëkk a gëm ne ci yàlla la jóge moo tax suñu borom ni fal yanzur il insaanu ila taami e waaye li nga lekk xool ko boo xooloon lekk googee nga xool cosaanam day fu bari jaar na fa mu yegg ci yow bu Sénégal mi tiim sa ceebu jën bi ceeb bi mën na am mi ngi jóge Pakistan jën ya ña ngi ko génne biir géej bu doon yow suñ caam rek doo lekk jën ndax doo dem géej di nappi lujum ya ña ngi ko jële ca mbooro xorom sa ma nga jóge keneen ila axiri ila axiri loolu suñu borom yàlla dajale lépp ci sa kanam loolu nekkul sa kattan looloo tax nga war a wax bismillah jël ko ci turu yàlla ñu ngi may fàttali mbokk ba Lamine Niass yàlla na ko yàlla jéggal ci yërëm ko nee na dafa am fu mu demoon ci dëkk Europe yi daje fa ak benn kilifa chrétien ñuy lekk mu ne yàlla ñu ngi lay sant yow mi wàcc ndox génne ci gàncax meññal ñu ci ba yegg si fii kaza lu ne mu wax doog a lekk mu ne moom mu ne man dama ne ko ñun nag sa wax ji moom islam ñun dañu koo simplifier dañu koo yombalal xamu ñun islam lu ñuy wax bismillah jeex na mooy ñu ngi lekk ci turu yàlla ma daal xam ni lii daal ñu ngi ciy dimbali ko yàlla yàllaa ko ba mu ngi ciy dimbali yàq bismillah jeex na mu ngi noonu bismillah boobu mbokk nga war a wax boo ko fàttee nga wax bismillahi awwalihi wa axiri yaa ngi tudd turu yàlla ci la jëkk ak la nga xam ne mooy li mujj sooy naan it noonu nga war a def heure booy naan waxal bismillah bala ngay naan ataaya la meew la ndox la lu mën a doon bismillah heure booy naan wala ngay lekkit lekkeel sa ndeyjoor loolee mi ngi noonu boo jëfandikoo woon loxo ba directement muy la gën boo jëfandikoo kuddu loolee dagan na loolee mi ngi noonu loolu mi ngi noonu am na benn ci borom xam-xam yi ki nga xam ne mooy cheikh cheikh rida dafa dem dajeek lenn ci ay borom mi xam-xam yi chrétiens yi ñu indi leen ay kuddu fourchette yi bi ñu lekk mu jël loxoom waa ñu ne ko waaw doo jël fourchette yi nga jël sa loxo muy Rachid Rida mu ne man maa ngi fourchette kay sama fourchette man dong maa ciy lekk yaa ngi dégg maa ngi fourchette boo xam ne man dong maa ciy lekk loolee kon mi ngi noonu dagan na nag nga jëfandikoo kuddu wala lu mu mën a doon waaye lu mu mën a doon jëlee ko sa ndeyjoor mu safaanoog tey li tubaab bi jàngale soo demoon ci milieu yu bari tey bu ñu la indiloon ndawal fourchette bi sa càmmoñ nga koy téye paaka bi ngay téye sa ndeyjoor booy lekk ah sa càmmoñ ngay lekk la ëpp ci yéeféer yi ah càmmoñ la ñuy lekk càmmoñ la ñuy naane lu waral loolu mooy seytaane moo leen ko jàngal yonent bi alayhi salaam dee leen lekk ndeyjoor di naane ndeyjoor ndax seytaane càmmoñ lay naane càmmoñ lay lekke loolee xam leen ne seytaane moo leen ko jàngal waaye yow jeune jullit bul am complexe foo mën a nekk nga lekk sa ndeyjoor lekk nga ba pare mu ne soo pare ci lekk yi wax la alhamdulillah ci bari ci nit ñi dañ koy fàtte ndax boo tiimee lekk gi moom yaa ngi yëg xéewal gi waaye boo lekkee ba sa biir fees moom lu ci bari dañuy fàtte waaye ngal la waaye tàmmalal sa bopp boo lekkee pare nga alhamdulillah entraîné ci sa bopp sax ba ngay commencé waxal alhamdulillah ngir boo koy fàtte ca fin ba alhamdulillah nga sant yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kii lekk yéeg ne lii xéewalu yàlla la mu lekk ba pare sant yàlla dana am tuyaaba ji tol ni ki yendoo koor la mu am gis ngeen mu lekkoon nekk lu rëy la ci gën a gàtt mooy alhamdulillah ñu ngi ci yazkar alhamdulillah allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa maa ngi sant yàlla mi ma may ma lekk lii mi ma ko leel te loolu it xéewal gu rëy la te gis ay milliardaires yoo xam ni mbokk mënuñoo lekk dara dara am na ci ñoo xam ne meew rek lañ mën a naan am na ñoo xam ne meew sax mënatuñ koo naan dañuy bëtt seen biir di ca jaarale lekk kon yow suñ càmm boo téemee ceeb ba dank ba sa biir fees loolu xéewal gu rëy rëy la la yàlla defal maa ngi sant yàlla mi ma leel lii ba pare wërsëgal ma ko ci lu dul sama kattan ak sama pexe am na ñoo xam ne nii bëgg nañ ko mënuñu koo am te léeg-léeg ngay gis ñu ne nangam manqué na gis ko yor xaalis ci amul fu mu koy jëndee wala joon sunu maam yi fi jaaroon ci fitna yi dans les années trente ak ak même après loolu dans les années cinquante ak yu demee noonu sax amoon nañ fi ay manquement ay ceeb manquement dund da ngay gis ko yor xaalis mais gisul lu mu jënd kon loolu xéewul yàlla wax alhamdulillah mu ne nag soo paree nga mar sa loxo su doon loxo ba ngay lekkee bu doon kudd ngay lekkee nga mar koo te loolu it beneen nattu la bu ñu yàlla nattoo tey mbokk li gënoon ci lekk mooy tey bu ñu indilee plat bi wala bool bi wala këll bi ñu lekk ko ba mu jeex takk-takk daa di tamas bool bi loolu xëy na ñoom suñ jaay ñoo koy xam jël mboolem lu ci nekkoon ci desit nga lekk ko mar say loxo ba nga xamee ne benn jeexitul ñam du des ndax yonent bi alayhi salaam mu ne xamu leen fan la seen barke ñam nekk kon lekk leen lépp ba dañ ne boolu yonent bi alayhi salaam ci këram musuñu ko yëkkati dara des ci kenn musul yëkkati bool dara des ci lu waraloon loolu mooy dañ daan tibb loo xam ni day yem ci ñoom mu safaanoon ak aaday Sénégal aaday Sénégal moom xel xalaatu ko ndaw si bu la joxee bool nga lekk ko ba mu set wecc gàcce lay yendoo waaye mbokk loolu mooy sunna loolu mu ne kur sunna mooy faxas bool bi mar ko mar mar loxo yi mi ngi noonu mu ne bu dee ni da nga nekkoon di lekk bokk na ci sunnay lekk sunnay lekk mooy sa biir bi nga xaaj ko ñetti parti benn bi ngay def ci lekk benn bi naan bi ci des nga def ci ay noyyi donte mbokk loole da ngay gis ne mboole mu médecin yi yépp loolu la ñuy digle mooy jël biir sar su ko ba mu fees dell ñëpp xam nañ ne tout texte est inuisible soo demoon tey ci dëkk yu mag yi rawatina États-Unis feebar ba fa gën a sonle mooy li ñuy tudd obésité mooy nit ñëpp ay super poids lañ yor lu tax mooy nañuy lekke loolu tax ba dañ ne ki la gën a mën a contrôler biiram moo la gën a mën a contrôler santeem bal moo la gën a contrôler sax diineem tax it mbokk biir bi bu feesee dell moom moom mi ngi noonu rek yàlla moo xam ala kulli xaal kon nga def loolu loolu kon mbokk yaakaar naa mooy bind bi jotoon a jël léegi mën nañu jël beneen bind incha allah kon bu dee yaa ngi topp sa téere mu ni wala tatanafas fil ina bul noyyi ci ndab ba ngay lekke inda shurbika ci jamono bi ngay naan wal tubnil qadaha an fiika sorilal kopp wala këll ba ngay naani ci sa gémmiñ summa tuawiduhu in shi'ta gannaaw ba nga dellu si waat ko bu la neexee wala taubbal ma abba bul nekk ndox ma di ko naan ci guux yu rëy gondox gondox wal tamassuhu massa waaye dee ko muucu nank-nank ak muucu wa taluuka taam mooy saqamil ñam wa wa tunammi'ahu gannaaw ba nga nooyal ko madran ca na nga koy saqami taluuk mooy tooyal nga koy tooyal si biir di ko wëlbati madxan ak saqami nga koy saqami qabla bal ihi avant nga koy wann boo paree wa tunazzifu faaka ba'da ta'amik seetalal sa gémmiñ ba nga lekkee ba pare wa in ghasalta yadaka min al ghamri soo raxasee sa loxo ci graisse wala labani ak ci meew fa xasan loolu day lu baax la wa tuxallilu ma taallaq bi asnaanika min taam min taam na nga jël def taxlil ca mooy génne desit ya nekk ca diggante bëñ ya ca ñam ba nga xam ne moom ngay lekk mi ngi noonu mbokk kon mu ne bu dee da ngay naan moytul di noyyi ci biir pot ba ngay naane heure booy naan bokk na lay nekk sunna may naan boobe suñ ko mënoon a def ñetti naan wala au moins ñaari naan ba ne rek jolu pot bi rek jolo jolo jolo jolo ba doyle loolu it bu doon te ne da nga koy def ci sa naan nga yëg ne da ngaa war a noyyi bul noyyi wat ci biir ndox mi ndax loolu yi ku ne gis na ne ni rawatina jamono ji nga xame ne nii nit ñi dañuy bokk ay naanukaay yow boo noyyee ci biir ndox moomi am na microbe yu mën a jóge ci yow dem ca pot ba keneen naan ko loolu topp ko loolu doon ay ay erreur yonent bi alayhi salaam dañu doon tere ñuy ëf ci lekk wala ci naan doo jël ñam bu tàng di ko ëf di ko jox ay xale rawatina ñu gis ñu jël ay kaasu ataay tiim ko ëf ëf ëf ëf di ko jox ay xale yu ndaw yooyu mbokk ay njuumte la kenn du def loolu mu ne bu dee da ngay lekkit nga la waaye dee ko saqami saqami bu baax ndax lekk gu ñu saqamiwul rawatina ay ndawal bu demee ci biir mën na fa indi ay ay ay problème gannaaw ba it boo lekkee ba pare raxasal sa gémmiñ ca sécrétu mooy dindi li nekk diggante say bëñ yooyu yëpp da ngay gis ni ci ay teggin la yoo xam ni mën naa sauver doomu aadama bi ci yu bari rawatina ci ay këreeg ak yeneen nag yu demee noonu loolu moo tax it islaam sunnaal nit ki bu dee dafa lekk ba pare jëm ci julli nga la waay su mënee mu socc loolu mooy wàllu googee suñu jël beneen bind mu ne wa naha rasulullahi ali rasulu alayhi salaatu wasalaam anil akli wa shurbi bi shimal yonent bi tere na nit ki di lekke càmmooñam wa tunaawilu iza sharibta man ala yaminik su dee da ngaa naan ba pare mbooloo nekk fa bu war a naan joxal ko féete sa ndeyjoor wa yunha anil akli wa naam wa yunha tere nañu anil nafxi ci ëf fi taami wa sharaabi wal kitaab ci lekk ci naan ak ci ab téere wa ani shurbi fi aaniyati zahab wal fidda tere nañ di naan ci ndabal or wala xaalis wala ba'sa bi shurbi qaa'ima dara nekkul ci kiy naan fekk dafa taxaw wala yanbaghi liman akala al kuraasa aw yi sawma aw il basal koo xam ne dafa lekk loo xam ne ay poora la wala ay laaj la wala ay ni koy waxee basal mooy soble mu ne nayi an kenn amul droit di ko lekk ci fekk ne ñorul mooy cru ñorul an yadu xolal masjid ki rekk loolu warul dugg jàkka mi ngi noonu mbokk kon day wax ne jullit islam da ko tere mu lekke càmmoon waxoon nañ ko ca suñu bind bu njëkk ba naam su ne dañoo toog ak mbooloo diini lislaam diineem lépp gaat nga gu rafet da cee am islaam bëggul gaaf waaye bëgg na gaat nga moo tax nit ñi ñu waral na wutal ay tur yu rafet lu ñuy defit ñu gaat nga ci lu rafet comme yowmal qiyaama yàlla day xaaj mbooloo mi am ñuy féete ndeyjoor am ñuy féete càmmoñ ñi féete ndeyjoor ñoo texe yàlla day joxe téere yi am ñuy nangoo ndeyjoor am ñuy nangoo càmmooñ ñu nangoo ndeyjoor ñooy texe looloo tax islam yi dañ naan la lépp looy def ca mu baax defe ko sa ndeyjoor kon it heure booy séddale jëkkeel ci ki nga xam ne moo nekk ci sa ndeyjoor loolee la wax ci wàllu ñam bi boo naanee ba pare bu doon ki nga xam ne dafa ñëw di joxe it dafa war a jëkke ndeyjoor lu dul ni ah mbooloo ma am fa kilifa boo xamee ne nii mooy kilifa ak mbooloo ma loolee dara nekkul ci ñu jëkke ci moom gannaaw ba nag moom mu joxe ña féete ndeyjoor kon lii la wax ci wàllu googee waxoon nañ ko sànqit ñam kenn du ko ëf soo amee ñam bu tàng islaam bëggul nga tiim ñam bu tàng dank boo dank ëf ëf ëf doog a lekk déedéet da nga koy bàyyi ba mu sedd ndax ëf boobee bokk na ci li ñuy wax am na ay microbe yoo xam ne mën na nekk ci yow sax du la lor mais bu génnee ba nekk en contact ak leneen delluwaat mën na laa lor donte li ñun loolu bu amul woon it yeneen ci bàyyi sàmm bi mu tere moom tere na ko duñ ko def mi ngi noonu mu ni jullit du lekke ci ndabu or te lu mel noonu jàngoon nañ ko ci biir darsiya du naane it ci ndabu xaalis or ak xaalis jigéen du ko jullit du ko lekke man ngaa dem ci ay hôtel ñu jox la ay kuddu xaalis léeg-léeg sax hôtel yi gën a doy waar léeg-léeg ñu jox la ay kuddu or waaye mbokk loolu jullit du ko lekke mi ngi noonu mu ne dara nekkul ci nga naan taxaw ndax dafa am xadis yu wane ne kenn warul naan taxaw waaye moo ko xadis yooyu boo xoolee borom xam-xam yee ko dajale soo dellu woon ci téere bu irwa ul ghalil bu cheikh nasrul albani la ca dajal ci xadis yëpp naan yëpp wax na ko ca la gën a digg doomu daal mooy toog naan mooy la gën waaye taxaw naan dagan na naka noonu it taxaw lekk dagan na lenn ci sahaaba yi nee nañ ñun day daanañ lekk sax di dox di dem kon suñ càmm bu la neexee gàddu soo mburu ci digg mbedd mi di xàmp di dem loolu dagan na doonte ne ne ku ne xam ne ne léeg-léeg mag bu koy def mën na am kii waaye daal dagan na mi ngi noonu mun a it du yey ci nit ki nga xam ne daa lekk lu am xet na doon loolee lu ci gënoon a siiw jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy laaj yaag soble ya waaye dañ cey boole lépp lu am xet rawatina cigarette bu bon bi am na ñoo xam ne yàlla nattoo na leen tuxkati cigarette soo taxawee ak ñoom bu ñu la daan doon un mètre di wax rek xet gi danaan la gëll mbokk ko mel noonu dañ naan daganul muy dem ca jàkka ja wala yonent bi alei salaam daana wax ne ku dend ak yéen ngeen yëg ci moom xetuk laaj googee génn leen ko jàkka ji yóbbu leen ko ca baq ya génn leen ko jàkka ji loolu nag en général mi ngi doon nekk laaj ak soble yi nga xam ne daawuñu ko togg arab yi dañ ko daan jëfandikoo bu bari te xataa suñ jamono tey ji am na ñu koy dégle jël laaj rek lekk ko noonu directement sans togg ko loolee ngal la waay bu dee waxtu julli la moytu ko ndax xet googu muy àndal léeg-léeg am na ñoo xam ne da leen di déranger te même bu déranger wul nit ñi it yonent bi alayhi salaam nee na malaaka yi nekk ci jàkk ji loolu da leen di déranger loolu tax am na ci ay borom xam-xam yu wax ne xataa bu doon yow dong yaa jëm ca jàkk ji amul droit def ko ndax malaaka yi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka ci loolu kon moo aju ci ci wàllu googee waa xam naa incha allah ñu bàyyi mbokk yi ndax amuñu laaj ci lii ñu doon wax bala ñoo jàll incha allah ci la ca topp ñu noonu wallahu aalam naam bismillah dafa am lu ñu tuddee ay malaaka yërmande yoo xamee ne ni dañuy teewe place jaamu yàlla yi loole la yonent bi alayhi salaam ne bul lekk laaj ni dem foofu da leen di sonal loolu firiwul ak nit ki nekk këram nit ki nga xam ne dafa nekk këram lu ko neex mën na koo lekk foofee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil nañ ko benn ñam boo xam ne ay laaj ak soble yooyu da caa nekk mu jox ko waa jëm dendaloon mu ne ko yonent bi lox doo lekk mu ne ko man li may dikkal du la dikkal te mooy mi ngi jibril dee wax ak moom ci yow loolu du la dikkal kon dara nekkul ci jullit foo mën a nekk nga lekk laaj ak soble amaa nag bu dee place su jàkka ja nga xam ne fa la malaaka yërmande yi di wàcc xet googu mu nekk ci yow nga bañ faa dem mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal su dee ne waaw mbokk yi am am lekk gi moom caabi di maîtriser nañ kon mën na mën nañoo continuer damaa bañ a yàq jullit sëñ caam sànq bi may wax naan biir bu fees moom day yàq xataa jaamu yàlla dañoo am benn gan goo xam ne waa bitim réew la maag moom ak ak sëñ caam ñu ànd di bisub iit la woon xanaa duñ ci suñu caay ni ñu ñu ngi lekk bilal ne ko ah non defal comme comme comme sa kër ah mu ne ah bon mu ne waaw téye ganaar gi pooj ba mu rocci rek rocci feneen lekk ndab bi yëpp bi mu paree nag mu fëgg biir bi na ah mel naa ne lii ma temps léegi léegi moom ko defee loolu it mbokk saa yi loolu moom mi ngi noonu mooy lekk lu bëri moom baaxul ba nga xamee ne nii borom xam-xam yi bu njëkk dañ daan bañ. borom xam-xam bu biir bi rëy yi noonu dana am lu ñu yàlla nattoo seen biir rëy rek waaye biir bu rëy day tayalloo nit ki ci ay naafila da koy tayalloo ci yu bëri ala kulli xaal nit ki mën ngaa lekk ba suur waaye daal bul yàq wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam waaleykum salaam wa rahmatullah islam dafa am lu ñuy tuddee alwarau mooy lu ñuy tuddee kersa daanu kersa lañ koy tuddee wala mbañum rus su dee ne société bi nga nekk am na loo xam ne dañ koo ñaawlu ku ko def duñ la joxati cër yow julit waroo koo def julit da nga war a sàmm sa personnalité te loolu ma wax it xam ngeen ne ku dajewoon ak Bilal Cam mu gàddu misu mburam di xam fa ji dem na waaw mais kii nag xanaa mën na ko kii ban ngaa dajeeg benn xale mu koy def du la gêné kon ñi daal lépp loo xamee ni ni yow soo ko defee mu indi problème waruloo koo def tey jii da ngay gis dagan na nga saf saw dem ca wetu miir bi saw fa mbokk loolu dagan la demal ci sahihul buxaari da ngay fekk xusayfa muy nettali na ànd na ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw ba ci ñagub waa ansaar yonente ba taxaw fa tuur fa ndox waaye tey xëy na Dakar de mais suñu àll yee mag mu taxaw ci mbedd tuur ndox pare nañ ci yow yaa ngi dégg donc ko loolu misaal rek laa ci doon joxe mooy daal bépp loo xam ne aada la waa waa gox sangam ku ko fa def ñu xeeb la yow jullit waroo koo def lu dul ci lor mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam kon ñu jël beneen bind mu ni wa yukrahu an yaakula muttaki'a sim nañ nit ki di lekk di suunu mooy samp sa conco daa di jël sa loxo teg ci sab lex ca la gën a siiw ni ñuy firi muttaki an doonte ne am na ñu koy am beneen firin mu ne wa yukrahu al aklu sib nañu it di lekke min rasi sarit ca la nga xam ne mooy bopp ñamu soos ba mi ngi noonu ñu teg ñam bi nga commencé ci digg ba di lekk wa nuhiya anil qiraani fi tamri tere nañu di boole ñaari tàndarma ci lekk wa qiila inna dalika ma al ashaabi shurakaai fiihi donte ne am na ñu ne tere gañ ko tere mooy nga ànd ak ñoo xam ne yéen ñëpp a bokk tàndarma ja wala ba'sa bi zalika ma a ahlik dara nekkul ci loolu bu dee da ngay lekk ak sa njaboot aw ma a qawmin takunu anta at amu at amtahum wala bu dee nit ñoo xam ne yaa leen invité di leen may ñu lekk mi ngi noonu wala ba'sa fi tamri wa shibhihi dara nekkul ci tàndarma ak lu mel ne moom anta jula yadduka fil ina sa loxo di wër ci bool bi li taakula ma turidi minhu ngir nga lekk ca la nga xam ne da nga ko caa bëgg walaysa ghaslul yaddi qabla al taami min sunna raxas sa loxo avant ngay lekk loolu nekkul sunna illa an yakuna biha aza xanaa lu dul nga yëg ni loxo bi kat lor mi ngi ci mi ngi noonu waaw mbokk kon day wax ne sib nañu nit ki soonu du lekk nga xam ngeen loolu affaire yi buur la ak affaire yi patron la mooy lekk jógal nga toog mi ngi noonu mu ne it sib nañu nga ñu teg ndab bi yow nga commencé di lekkee ci digg ndab ba bal da ngay lekk ci wet gi jëm ci digg ndab ba am na benn xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen dee lekk bu dee lekk ci digg ndab bi lekk leen ci wet yi ndax barke bi ci digg bi lay wàcc loolu mi ngi noonu ngeen di lekk mi ngi noonu mu ni bu dee ni yow da nga nekk ak ay nit yoo xam ne yéen a bokk li nga di lekk tàndarma yi bu ko jël par ñaar ñaar di ko jël par benn benn mu ne bu dee sa kër nag wala ñoo invité loolu dara nekku ci mu ne bu dee ni tey jii da nga doon lekk lu mel ne ay tàndarma nga xam ne benn bokku ci ak sa moroom dara nekkul ci yow ba nga ci xemmem nga jël bi jël bi jël bi te loolu même bu doon da ngaa bokk ak ay nit ndax ñoom it mën na am li nekk sa kanam la ñu xemmem loolee mbokk da ngay gis ne mooy bu dee tàndarma yi dafa wuute waaye da doon cosaan mooy ku ñu lekk li nekk sa wet amma bu deente ne lu mel ne ñun place Sénégal yi ñu miin gis ne tey dañuy teg ceebu jën teg carotte ba fee nawe ba fee ñambi ba fee loole da ngay gis ne dara nekkul la nekk sa kanami moroom nga jël ko su dee ne yow nekkul ci sa wet amma bu doon carotte ni ngi sa wet waroo bàyyi sa carotte fii dem jël carotte keneen jën ngi sa wet waroo bàyyi sa jën bi dem jël jënu keneen te mooy ku nekk na lekk la nga xamee ne ni moo sës ci moom lu dul muy loo xam ne dañ koo bokkoo teg ko ci digg ba ñëpp bokk ko bu dee am na lu féete fee dara nekkul ci nga jëli ko mu ne nag ne fokk bala ngay lekk nga raxasu loolu nekkul sunna raxasu daal mi ngi dépendre ci ndax loxo bi set naam setul sa loxo bu setul bala ngaa lekk raxasul bu la wóoree ne sa loxo set na bu lekk gi ñëwee mën ngaa commencer directement lekk loolee kon lay jàngale ca ca wàll googee su dee dañuy jël beneen bind kon mu ne wal yaxsil yadahu mi ngi noonu wa faahu ba'da taami min al ghamr ki nga xam ne dafa lekk graisse gàllawaay bu paree na raxas loxoom raxas gémmiñam wal yumadmid faa'u min al laban bu dee da ngaa naan mais wit ngalawaay gallax ndikul ba nga naanee mais mu ba pare wa kuriha ghaslul yadi bi taam aw bi shay'in min alqataani wa kadhalika bi nuxaala sib nañu ngay raxase sa loxo ci desitu ñam da ko ca fomp ca wala jël def ca desitu ñam ba lu nga xam ne ngay raxasoo wala lenn ci ay sunguf wala xatta li ñuy tudde ab cox sax mi nu xaala kenn waru koo jël di ca fompo wala di ca raxasoo waxad uxtilafa fi dalik doonte ne ne wuute am na ci la nga xamee ne mooy wàllu cox boobee wala wal tujib ida duita na nga wuy ji bu dee dañ laa woo ila walimatil mu'ris ca la nga xam ne mooy ak céet mooy dañuy céetal ña nga xam ne nii la ñuy feetal ñay ceetu mi ngi noonu in lam yakun hunaka lahwan mashhur bu dee nekku fa kay ay caaxaan yoo xam ne yu siiw la wala munkar wala lu bon bayyin boo xam ne bu leer la wa anta fil akli bil xiyaar soo demee nag ca xew ma moom bu la neexee moom lekk bu la neexee bañ a lekk waqad arqasa malikun fi taxallufi li kasrati zihami nnaasi fiha doonte ne malik nee na bu la neexee bañ a dem su dee ne dafa bari mbooloo ma nga xam ne moo fay nar a daje mi ngi noonee mbokk kon ci bind bi day wax ni heure boo lekkee graisse na nga raxas sa gémmiñ te loolu it ku ne xam ne ni ay teggin la yu rafet bu dee meewa na nga galax ndiku mu ne nag nga jël la nga xam ne mooy ak lekk la di ko fompoo loolu mbokk dañ koo tere ci lekk masalan nit ki lekkoon ba pare jël mburu dugal ci loxoom fompoo ko déedéet maadaama lekk dañ ko war a wormaal jël sunguf teg ci sa loxo jël raxasoo ko ngir fomp lekk ga loolu dañ ko dañ ko wormaal mu safaanoog ku ko doon def ak ay omo ak yu demee noonu loolee kon lay wax ni lekk dañ ko war a wormaal kenn waru koo utiliser ngir di ko raxasoo wala di ko fompoo mu ne bu dee ne nit dafa am ak céet woo la wareef la ci nga dem lu dul nga ragal ne ay caaxaan nga fay fekk boo fa daree fekk ay caaxaan ci lu jaaduwul ci ay tëgg ak fecc lu jaaduwul ci jaxasoo góor ak jigéen mu ne su boobaa yow am nga droit bañ a dem ngir caaxaan googee waaye bu fa caaxaan amul moom da ngaa war a wuy ji soo demee it bu la neexee nga lekk bu la neexee nga bañ a lekk yonent bi alayhi salaam danaan wax naan sa mbokk julit bu la woo ci xewam wuy jil su dee ne yow wooroo bu la joxee lekkal soo wooree nga ñaanal ko loolu mi ngi noonu waaye wareef la nga dem wuy ju ko bu dee dalaa woo rawatina bu dee ca wàll ak céet imaamu Malik nag mu ne bu dee ne ceet ga kat mbooloo ma fa nekk daa bari lool ba yow nga jàpp ne dem nga fay dem imma mën nga caa loru wala yow nga dem faak nga ñàkk faa dem kenn du ko remarqué su boobaa da ngay gis ne dara nekkul ci nga bañ a dem ndax mbooloo mi bari na bari goo xam ne soo demul it kenn du jàpp ne ñëw nga ak ñëwuloo amma bu doon te ne yow sa ñàkk dem day marqué day marqué ka nga xam ne moo woote. su boobaa loolee moom da ngaa war a dem fii ak lor nekkul ca ca wàllu googee lii mbokk dañuy gis ni dafay aju ci wàllu la nga xamee ni nii mooy aju ci wàllu lii muy jàngale ci la nga xamee ni nii mooy ak lekk ala kulli xaal bunt la boo xam ne da koo def rek buntu dabantal waaye ca biir téere ba waxoon na la cosaanu lekk gi lan nga war a lekk lekk gi fokk war naa doon lu dagan fokk war naa doon lu teey boo koy lekk waxal bismillah soo paree na nga sant sa borom subhanahu wa taala fexeel ba bul yàq ndax suñu borom yàlla nee na bëggul ña nga xamee ni nii ñooy ay yàqkat kon lii mbokk julit lan lay jàngal julit bi mooy kee nekk ca jàkka jay def ñaari rakka ma ngay jaamu yàlla kee tim boolub laa xam wala boolub fondeem ma ngay jaamu yàlla lu tax muy julit moom léppam léppam da koy jagleel jaamu yàlla moom la borom bi di wax naan qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama dund gi mi ngi sama julli sama rey yi sama doxalin yépp jagleel naa ko yàlla mi nga xam ne nii moom mooy borom bindaa fan yi amul kenn ku ma ko bokkaaleel loolu la ma yàlla sant ca man dama bokk ci jullit ñi wa ana minal muslimin kon muslim mooy noonu moom la l'islam jàngal léppam am na benn juif bu doon saboté Salman al Farisi que yéen lu ñu wax rek ngeen ne yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad xanaa moom jàngal ne ba jàngal leen sax ni ngeen ñi demee douche mu ne ko ajal akay jàngal nañu ni ñuy demee douche nee na bu ñuy dem douche nañu fexe ba heure booy dindi sa yére waxal bismillah nañu fexe ba bu ngeen du ngeen jublu penku bu ngeen dee defaru na ngeen defaroo la nga xam ne mooy ñetti xeer bu ngeen dee defaru moytu leen lépp lu am worma ci lu ñuy lekk wala lu ñuy mën a jëfandikoo loolu lépp yonent bi alayhi salaam jaaxa jàngal nañ ko juif bi ne wedam xamul li muy wax kon ala kulli xaal yow ndawal jullit xamal ne l'islam moo lay jàngal savoir vivre mooy képp koo xamee ni nii ji xam nga sa diine société boo mën a dem ci kaw suuf européenne asiatique lépp yaa fay doon misaal boo xam ne kenn du mel ne yow ci set kenn du mel ne yow ci réglé kenn du mel ne yow ci organisé looloo tax day métti xol nga dégg nit ko correctionnel waaye diw tubaab la wala diw almaa la diw nangam déedéet mbokk jullit jullit amul ku ko gën a correct amul ku ko gën a juste amul ku ko gën a matale lu tax mooy la nga xam ne moom lay topp mi ngi jóge ci rabbul alamin yal na yàlla def ñu ay jullit zahiran wa batina mi ngi noonu mbokk wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain nga ne ñoom ñëpp bokk ndeeg bay ala kulli xaal mbokk affaire yi miraas moom liñ ci gënaloon te ñu koy yàgg a wax mooy da ngay ñëw toog nga ni mir miraas bi nii la demee fu nga dem ci borom xam-xam nga ne ko sunu bàyyi daa dee lii la bàyyi moom dana la laaj ay laaj ndax yéen ñu bokk ndeeg bàyyi du tee soxna day doon du tee la nga xamee ni ni maam day doon bu dee ma nga fa kon loolu dafa laaj ay laaj liñ lay wax daal yéen ñu bokk ndey baay bu dee góor a yéen a yem bu dee da ngeen am ay sœur góor ñaar jigéen benn am na nag yeneen i détails loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw waaw mu ne mu ne kan waaw ala kulli xaal ndax nit ki di lekk ci biir lekk gi muy mar ay loxoom ca pareegul loole mbokk ban sens la am maadaama loxo bi da nga koy mar di ko dugalaat kay jaru ko su ko defee tamit am na ñu bari ñoo xam ni daañ gis ne loolu du rafet ñu koy gis seen bët loolu daal mbokk bokkul ci loo xam ne nii lu xel di nangu islam daal lam digale woon lekk nga ak sa loxo ba pare bul dem directement raxasu fekk loxo baa ngi takk rip ak ceeb wala takk rip ak cere mar ko ba pare doog a raxas amaa nag lekk pare goo loolu moom islam xamul loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam koo xam ne moog yaayam da te doon da doon denc nga ne mu takk ko ndax mën naa nekk koo xam ne kii kàddee boobu moom la ñu see
ah koo xam ne da nga doon da nga doon séy ak moom waaw nga nga nga fase ko da koo fase wala mu dee waaw ah da koo fase wala mu dee mooy mooy séyatul ak moom daal waaw d'accord loolu dara newu ci islam ni mi bañ ñu boole jigéen ak tantam wala jigéen ak bàjjenam waaye bu dee ne da ngaa fase tanta bu la neexee takk doomam bu dee da nga dafa dee bu la neexee takk ko donte ne ne bu dee gox yu bëri aada bu ñaaw la ci ñoom waaye bu dee l'islam moom daganal na ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam salaamaaleykum ah ndax ah ku def ñetti fase ah waaw waaw ki def ki ñu fase ñetti fase naam dana iddewu waaye idde bi du du pour kaka fase day iddewu bu idde bi jeexee pour mu mën a séeg keneen amma bu doon premier fase idde bi muy iddewu jëkkër jee ko moom heure bu ko neexee mën na ko delloowaat ñaareelu fase heure bu ko neexee mën na ko delloowaat tant que idde bi jeexul amma bu dee ñetti fase soxna si dana iddewu bu iddaam jeexee pour mu mën a séeg keneen mais jëkkër ja ko fase moom dootu mën a séeg moom lu dul séy naag keneen ba tas ca wallahu aalam naam waaw dama doon laaj dama fekk ñaari sëy sëy yoo xam ne dañoo may ay chrétien waaye ci ay jàkk lañ ko takkee léegi imaam yi ñoo ko xutba
kan mooy kan moo ci chrétien ku jigéen ki mooy chrétien ku góor ko jurit la waaw jullit la waaw léegi ay imaam jullit ñoo ko xutba wa ala kulli xaal léegi laaj bi mooy est-ce na que ñoom su fekkee ne làbbi bi waxoon ne moo koy xutba dana dagal ak imaam bi xutba
ala kulli xaal jigéenu chrétienne ay way juróom ñoo koy maye te ay way juróom lañu dem ñoo ko war a maye su doon ne waajur ñoom ñoo jox ndigal ne leen jox nañu kilifteef bi seeni imaam ñu def ko loolee dana dagan waaye cosaan bi mooy maadaama chrétienne la ay way juróom ñoom ñooy maye loolu ca la nga xam ne mooy ci seen sëy ñoom la nga xam ne seen labbe bi bu ko xutbaak yu demee yépp sëy moom mooy consensus bi ñu def rek ba xam ne mayee nañ ko mooy ñaan nañu may nañu moom la muy wax gëm na ko amaa yeneen jullit yi ñu ña ku ko dégg ñaanal ko loolu daal moom mooy cosaan ci wàllu sëy ak chrétien bu doon te ne xale bu jigéen bi daa tuub ah su boobaa waajuri chrétien yépp dañ leen di dégager xale bu jigéen ni juri chrétien bu tuubee benn chrétien dootul nekk kilifaam jullit rek moom mën a nekk kilifaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw am mbokk boo xamante ne nii maanaam day lekk ci ndab ba bon ba ba ba ndab li jeex ba jëli yàq yi sottiwaat ko ci yàq bi maanaam loolu moom daf koy ñaaw ba xam nga ba xam loolu daf koy def ah dafa lekk ndab bi jeex na ay yax la jël sottiwaat ko ci loolu kay dara nekku ci loolu dara nekku ci maadaama ndab bi jeex na li nga xam ne daal mooy rafetul mooy ndab bi des na lekk bu bëri loo xam ne bu ñu ko defaroon keneen mën ko lekk ñu jël ko bagat bagat comme ni mu am ci 90 pour cent kër yi Ndakaaru yi yéen a ngi daan dégg njamu mbaam mi ngi noonu am na ay temps sax dañu ko daan concours bu jamono neexee lañ ko wàññi waaye kër gu nekk da daan génne njamu mbaam mbokk loolu nekkul lu jaadu dañ ko war a moytu suñu kemtaleel kattan moo gën a yomb ci poos yi te it moo gën a dëppoog sunna mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal mbokk kon naam waaleykum salaam wa barakatu ala kulli xaal raxas bool yi moom ah dara nekkul ci ñu raxas ko mu dem ci salle de bain yi ndax tey jii boo gisoon ñi nekk ci gox yu bari amuñu fenn fu ñu mën a raxase seen bool lu dul ne day dem ci lavabo yi cuisine yi am lavabo foofu la ñuy raxase fokk mu dem parce que pexe amu ci loolee kon dara nekkul ci loolu nit ki nga raxas say bool mu dem ci li jóge ci cuisine bi ak li jóge ci salle de bain mi yëpp ñoo bokk fu ñuy jaar ku ne xam na loolu donc daal loolu ay lor la yoo xam ne nii dara nekku ca problème bi rek mooy fexeel daal bul jublu mukk di woyefal ñam di ko ña ko jox war ma wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw yaakaar naa kon mbokk ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain